baax a baax di am mbégte rek di séq ak waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne moo di honorable euh, député Ibrahima Diallo dinañ waxtaan ak moom euh, ci lépp lu ñeel wàllum actualité waaye aussi lu làmbook li nga xam ni euh, moo di màggalub Cheikhul Khadim bi balaa rek nuy gën a xuus ci bili waxtaan ñu koy daal di nuyu bàyyi ko ak mbokk internet yu nuy suivre honorable nuyu na la di la jaajëfal bu baax a baax waaye aussi di am mbégte di bokk ak yow bi la jotaay. voilà nuyu mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan fii ci Sénégal na fii ci Touba mais également à travers le monde parce que bën na ni tey jii xel yi ak xol yëpp ñu ngi biir Touba donc di am mbégte tey jii jàkkaarloog askanu Sénégal pour waxtaan ak tuuti tuuti tuuti suñu teewaay fii biir Touba euh, dañuy sant yàlla d'abord. sant yàlla bu baax ndax ni ngi ni daaw ñu woon fii euh, euh, bañ fi ñëw suñu xol tëju woon na suñu xel yi tam tëju woon na lool ndax jamono yooyu dafa fekkoon na président Ousmane Sonko nekkoon na prison ñu ñëwoon fii nag fii nag ñëw fi fii mbégte la rek ab sant yàlla la rek xam naa ne foofu sax laa waroon a njëkk a tàmbale euh, nuyu kilifa diine yi euh, teg ko ci loxo euh, sëñ Muntaqa mi nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides mu jàllale ko képp ki nga xam ne moom mooy kilifa fii ci biir Touba ñaanal ko yàlla yàlla guddal ay fanam euh, ñaan yàlla aussi tam yàlla def jàmm fii ci biir senegal tuur ko également ci bopp réew ki ne nga xam ne moom moo nekk ci bopp réew mi moo moo mooy Bassirou Diomaye fay ak son premier ministre Ousmane Sonko euh, ndajeg Touba nag mbégte ci képp koo xam ne sénégalais nga ndax euh, suñu maam maam borom Touba moo jaayante woon ba yàlla may ko li mu koy may mu ne bés bii bés bu ñëwee ñëwatee nañ ngi ko santalee yàlla ndax euh, yàlla si boppam sax moom moo ñu sant loolu ne sant yàlla ne leen alhamdulilah man ma dolli leen ñun dañoo fekki ñi ñi màggal bës bi te bés bi at wu at wu ne rek bés bi gën a màgg kon sant yàlla am na solo donc ñun ci tànk yooyu la ñu roy ñun tey jii membre Pastef amoon kuréelu politique bu ngeen seetloo ñun aussi tamit saa yu bës bii ñëwee ñun dañu ñëw euh, sante la ko ko yàlla mais santaale yàlla ñu ñum tam parce que ni ma la ni ma la ko waxee rek ñëwoon nañ fi daaw suñu xool tëju suñu xel lëndam waaye tey jii ñu ngi sant yàlla bu baax ndax li ñu bëggoon yàlla defal nañu ko am na yàlla jox nañu réew mi nga xam ne ñoo ko doon wut tey jii le président Bassirou Diomaye fay moo nekk le président de la République Ousmane Sonko moom moo nekk premier ministre waa Pastef tey jii ñoom ñoo yor seen projet boo xam ne tey jii lañ bëggoon ci Sénégal yàlla defal nañu ko te ñoo ngi ñaan yàlla ci bés bu tedd wi ñu jëm ci safar gi yàlla yombale leen lépp jërëjëf honorable di la jaajëfal lu a baax alors euh, merci beaucoup honorable daanaka danuy euh, sóob rek waxtaanee li nga xam tey jii moo nu fi dajale euh, yaa ngi koy junj sànq visite ren bi wuti na ak lool visite bi nga xam ne moo di visite daaw démb premier ministre ñëw seet si ki nga xam ni moo di sëñ Mountakha Bachir alors nan nga mën jàngate li nga xam ne nag moo di visite premier ministre fii ci biir Touba. waaw def nu mu ko daan defee. donte comme li nga wax euh, euh, ñëw yi ni wuute na ndax euh, am na lu tegu ci ñu kaw ginnaaw yi ba ñu nekkee woon di ko wut ba yàlla may ñu ko waaye musuñu wàcc ci taxawaay ak bis gis-gis bu ñu am ci suñu kilifa yi loolu moom musuñ ci wàcc ndax amul màggal boo xam ne am na ci le président Ousmane Sonko du ñëw màggal si loolu nag lay ñëw rek feddal si kóllëre nee naa la euh, mbégte mi ak sant yàlla la ñun démb tam li ñu doon def sant yàlla rek la euh, maa ngi koy wax démb ne leen visite bi man lu ma ci sentir mooy yàlla kese la mooy yàlla moom rek moo mën nu mu ko neexee ak nu mu ko namee mu defee ko noonu ndeke ñun jaami dañoo war a sabablu rek donc sabablu googu moom la suñu maam borom tuubaa defoon boo seetloo tam sabab lu boobul moom la président soo ko defoon ba tey yàlla may ko li mu koy may kon tey bu wëlbatikuwaatee boo seetloo visite yu ñu def yëpp am na fàttaliku tuuti dellu ginnaaw waaye dangay xam ne rek loolu yëpp yàlla rek moo mën waaw fàttaliku nañ ne euh, doon na fi an am anam yu fi doon ñëwee teertu gi du demee noonu waaye lu ci bari soppeeku na tey kon loolu yëpp yëfu yàlla la. waaye tamit dafay am leneen loo xam ne tamit jàng day jàngal dañ ciy jàngal lu ñu jàngal mooy nit boo nekkee ci dara di ci yëngu bu ci am xel ñaar ndax euh, loxo nit joteewu ca te yàlla rek moo mën ci yow dara donc loolu mooy jàngalaate bi parce que tey jii boo seetloo Pastef fu mu jógee depuis 2017 di raam di ñëw di raam di ñëw ba yàlla may ko li mu may li mu ko may tey euh, mooy wane ne nit lu amul lu du sabab lu donc ñun mën nañoo am nañu sañ-sañ wax ne tey jii mbégte mi dañ cee gis suñu bopp bu baax euh, donte suñu maam borom Touba yoon wu nu woote woon moom yoonu lislaam la mooy dëggal lislaam ñun ñu woote ne ñu tabax réew mi waaye dañoo mel ni ku jukki ci ay valeur am jukki ci gis-gisam pour mën a yegg si fii ñu yegg si fii tey donc euh, loolu laa gisee vraiment visitu démb bi mu ànd ak beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de satisfaction surtout nag ndax euh, ba mu yegsee deful xaj ak seet deful xaja ak seet fépp fu nga xam ne war na fa dem te kilifa nga ci biir dëkk bi dem na fa gis nañ tamit waa Touba nuñ ko terto ndax euh, fépp fu ñu dem nag yéen yéen mun ngeen ko seede fépp fu ñu dem itam euh, nit ñi génn nañ fit de li vraiment seen cofeel ci moom loolu nag dafa am leneen lu muy wundu mooy wane ne daal Ousmane yàlla moom moo ko teg suñu kanam ñu ñëpp waruñu def lu dul ñaanal ko lii nga xam ne tey jii yàlla jox na leen ko mooy réew mi yàlla yombalal leen ko de te ñun ñëpp te aussi ñoom ñoo war a ñu ñoo war a ànd sénégalais yëpp daal di jàpp fexe lu koy jëmale kanam euh, euh, li may dolli rek mooy taxawaayu waa tuuba te su ma ne taxawaayu waa Touba itam Euh, dama ciy toftal euh, sëñ Cheikh Thioro Mbacké honorable député euh, tey jii mun naa wax fii ni ne ñun patriote yi ñun ku ci ne ci ñun dafa war a roy ci sëñ Cheikh Thioro Mbacké sëñ Cheikh Thioro boole na ànd naa ñëpp nangu naa uuf ñëpp te loolu moom moo war a law ci 46 départements yëpp waaye tam def na ko ak fulla ak fayda ak dignité ndax métti woon na ci loolu moom mais mu jàpp tey jii yàlla may na ko ci ndam waaye ku ko yàlla mayee ndam dafa boolewaat ñëpp uuf leen donc euh, euh, loolu euh, nekk na mandarga goo xam ne dafa war a fenc ñun nekk na mandarga boo xam ne képp koo xam ne tey jii patriote nga da ci war a roy donc c'est une occasion aussi man ma remercier ñaanal seen Cheikh Thioro Mbacké moo xam li mu bëgg ci projet bi yàlla ko yàlla yombalal moo xam li mu bëgg ci Touba ci projet bi yàlla ko yàlla defal lépp li nga xam ne bëgg na ko xam naa ne am na fu mu teg Touba te yoon la mu teg ko fa donc am na tam lu mu bëgg par rapport ak projet bi fii ci biir Touba yoon la aussi tam mu am taxawaay bu mel noonu. Makhtar Cissé ginnaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la nga tàbbi ci waxtaan bi.